autre journaliste boo fi nekkee du tudd sax dañuy foog ne yow da ngay lobbying pour quelqu'un alors que c'est pas ça je vous disais tout à l'heure après Mamadou Mansour Diop Ahmed Aïdara dafa liggéey ak moom te dama ne bu ñu nee diw baax na dañ naan ndax moo ko yaa ko wax waaye bu ñu nee diw professionnel la dañ naan ndax ña muy liggéeyal ñoo ko wax nañ leen déglu Ahmed dara man Asma Khadija biir RTS bañu ma ci ba yore sama pancarte maa ko wax Pastef wut équipe am fas yéene defaraat télé waaye man personnellement par suma waañ chaque jour dañuy jokkoo téléphone dëgg loolu dëgg waaw waaye man moom bokkuñu gis-gis bi yow xale bu jigéen bi bokkoon naa moom fi liggéey doon mhm. mënoon naa ne naa am kersa ci lii ak lii soit ma man awma ci réaction

bu ñu indi mukk ne yéen yi ànd na ñoom ñoom ñetti at waaw ne dara coalition coalition la dama naan ko asma ba mu ne naam ma ne ko man sama xalaat te bëgguma fen yow jàppoo ci projet bi parce que man ak yow xuloo nañu une fois ci plateau parce que sama gis-gis daawul mës a bokk ak sa gis-gis sa gis-gis mooy ces gens là ont détruit le pays te jotaguñ le pays buñ jotee le pays dëgg ko RTS nag comme comme moom nee nañ alalu mbooloo la. deux ans bu ndaw gii rek comme télé wéy ma ñun wala lu tax nga ko fay doyee nag comme nga day bale xaw ma day fóot xaw ma day palaatoo waaye lu mu ca mënti def lu mu ca mënta def laa la wax man sama gis-gis bu gàtt laa wax di sama gis-gis bu gàtt amul fa place loolu moom ci bi gars yi di liggéey ci projet bi la. balaa ngaa jël Moussa Mbaye te Daouda Sarr muy ne fi xeex ba ni sax. pare fi xoolal génne waatal ma beneen bi bu saa saa njoogu bi dégg ngeen li Ahmed Aïdara nee na ñoom ñaar yàgg nañoo jote ci plateau ndax lan lim koy wax nee na Asma Khadija da doon wax naan ko ñii danoo yàq réew mi te ñëwaguñu au pouvoir moom Asma Khadija mi ñu jël tey moo wax lii nee na waa waa Pastef Ousmane Sonko et consort danoo yàq réew mi te ñëwaguñu ci pouvoir bi kon bu ñu ñëwee lan la ñuy def Asma Khadija yaa wax lii loolu la Ahmed Aïdara répété tey Asma Khadija yaa toog ci seen TV ne xale yi bu ñu toogoon seen pooju nday li yëpp du leen ci fekk Asma Khadija yow yaa toog nga ne manifestation jaru ko bu fekkente ni yow Ousmane Sonko sa diggante ak Mame Mbaye li nga ciy wax wóor na jarul li yëpp jarul muy bëri bruit bul woo xale yu génn ci mbedd di bul def dara daagul nànk rek yóbbu say papier ndax lii dafa am leneen lu muy ndurool yaa ko xam nga ñun lu ñu wax rek andi nañ say kàddu teg léegi nañu déglu Sandiogou ci solution TV moom ak ñoom Sohaibou ak Mesere tey def nañ ci benn analyse bu am solo ñu teewlu leen. may ziar au passage Néné ay Ba Néné ay Ba bu ñu demee bay jël seen TV pourquoi war ko fee bàyyi moom Néné Aïcha Ba kan moo ko gën a gën a gën a mën a professionnel. est-ce que kenn mën na toog ba joxañ baaraamu tuuma ne ne ne ne Ba ah, santoon nañ ko sale boulot bi mu def ko est-ce que loolu mës na am ay journaliste yu diñ yu am principe ñu ngi fii ay journaliste yoo xamante ni doo tappe internet ba gis ci lenn loo xam ne day saliir seen moralité mi ngi fii nañu déglu euh, Sa Ndiogou. taw euh, ñàkk. parce que faw mu am parce que li tax muy mooy ñiy coow ñoo coowal Pape Alé ñoom jàpp nañ ni ñoo ko coowal ba tax Pape Alé ne parce que boo seetee tey ñi nga xam ni ñoo am lu leen metti ñoom ñoo doon wax ni directeur RTS mm. Pape Alé Niang lay doon même personne yi ñoo doon wax loolu mm-hmm. kon donc dañu jàpp ni critères yi fi ñu ko tegoon mooy Pape Alé dafa xeex mm-hmm. teguñu ko ci leneen du Pape Alé dafa xeex sonn ci projet bi nañ ko jox RTS mm-hmm. ak ki fal nag ci loolu jàpp ni moo la fal dafa jàpp ni tamit ku xeexut ko fal hmm. looloo tax papaane bu jëlee femme bi tey naqari ñi nga xamante ne bi ñoo doon xeex hmm. da leen di metti waaw parce que dañu ka dañuy jàpp ni moom li tax ñu teg ko fa mooy dafa xeex hmm. kon bu fekkee ne dafay fal même bu falut ku xeex mais bu fal ku doon xas. waaw ku doon xajama xëpp suuf. comprendre mën naa indi problème daal. waaw ah, loolu mooy problème bi loolu problème la même bu dee faloo yow ku xeex. Mhm. mais bul fal ku doon xas. Mhm. koo xam ni kii lépp da doon xas. Mhm. ba man nag jàpp naa ni femme bi moom euh, li Mansour expliqué moom man loolu laa mos a man jàpp ma femme bi euh, femme buy dem ak xalaatam la. dama jàpp rek ne femme la boo xam ni dañu koy utiliser muy mu doon mën na doon sax victime muy wax wax yoo xamante ni bii euh, mm-hmm. gëmu ko mais euh, kii mooy tooyal ceebam si fi mu koy ñooy tooyal ceebam rek mën na wax lu ne luñ ko wax mu wax mais daa amut ay idée yoo xam ni ñu ci mm-hmm. ku mel noonu nan nga mënee gis ci moom talent parce que tamit bu fekkee da ngay tànn nit ki ak talent. Uh-huh. nan nga mënee gis ci moom benn talent bi sax ba tax nga mën koo. jox kii ndax yooyu da ko soxla par pour manipuler ko parce que man dama jàpp rek ni ku ñuy manipuler la. jàpp ma ni koo xam ni kuy dem ak ay idée boppam la ay gis-gisam la wala leneen quoi comprendre uh-huh. jàpp ma loolu. ok jàpp naa ne femme la boo xamante ne bi saa yu xëyee façon bi mu doon defee vraiment dama doon wax ne kii euh, munut li muy def man loolu laa gis. Mm. mooy bi ñu ne fee. une tête vide tête vide waaw tête vide bu ñu guidé waaw après moo doon mooy présenter seen émission boobu ñuy def ci suba gi. comprendre noo def dana wëndeel yëf yi moo tax patriote yi nga xamante ni bi euh, euh, ñu ngi koy siiw dañuy am leen naqari trop. ci mais est-ce que alaaji rupture la ñu wootee. Euh, Pape bu demee ba mën a jël. Ah, caméra jox ko koo xam day dal ci kaw état bi. Mhm, waaw xam nga su am na ku damaa bëgg liggéey indi mhm. ce que mhm. rupture wul ko. yow fi mu euh, kii ku say ko xam ne wurtu wax si télé boobu wurtu bi. waaye kii moom wax seen TV ni muy waxee nii. xam nga xam nga tey côté man ci rupture xam nga tey parce que ñu ngi yónnee xam nga tey waa xam nga xam nga tey Euh, Pape Alé mi ngi ci euh, pante boo xam ne bu defut ndànk euh, lépp mën naa mupp mupp ci kawam parce que dafa am noo xamante ni bii tey Pape Alé loo jour dafa ñëw nga ne luñ loo ñu tiitreel keroog da nga ñu wax ne Pape Alé nee na na gaa yi gaaw parce que sinon nañ wax gaa yi dëgg mm-hmm. sinon yëf yi dina mëpp ci sunu kaw waaw mm-hmm. loolu. waaw yëf yi mën naa tourner. xëy na ñoom xëy na parce que parce li ñuy bàyyi gaa yi kii te ba noppi ñu def naka sudut noonu ñooñu dañoo def yaa ngi dégg kiit wax ji mooy def ji am dëgg la te actuellement am na loo xamante ni bii tey moom laa la doon wax l'autre jour xam nga dafa am loo xamante ni bii tey sooy bu boo ko boo ko boo ko jëlee eh, nga nga koy def mën nga dem parce que bëgg ñu lay wax naan la noo sa waay ngand la gis nga ko li muy def même buy recruter sax ñii lay jëlee kii sa waaye. bon euh, kii bi xool dugalaatal ma foofu Fallou s'il te plaît ma xoolaat excuse-moi de ñun on se bat pour des principes on s'est battu contre le régime de Macky Sall. on s'est battu contre le régime de Macky Sall. on s'est battu gis nga bu ñu naan régime bu naan système ay nit la. duñu ay jinne yoo xamante ne ñooy toog gi di guider wala di doxal de ay nitu nit ngaay lañ te Asma Khadija mi jaaram gii dafa bokk ci ñi nga xamante ni waruñu ànd ak tey ñun changement bi nga xamante ni moo taxoon muy xeex parce que nit munoo toog ci télévision àddina bi yëpp di la di la di la di la di la déglu moo ma ci ci foofu noonu fi am document yi àddina bi yëpp di leen di la déglu nga ne xale yi ku dee yaa perte te comme Ousmane Sonko moo ne woon ku dee sa yaay juraat ñii dee nañu kon na seeni yaay dem juraat c'est une insulte pour ces morts c'est une insulte li Mamadou Mansour Diop wax ni moom dafa mel ni ab yatu kel recrutement wu Asma Khadija man loolu laa ci même sentiment boobu laa ci am parce que ñun dañ doon toog ci télévision yi doon wax naan ñaari solution moo am Sénégal pour révolution mën a am se battre ou se résigner te si on se résigne dañuy résigner wu si ñun suñu ëllëg waaye suñu ëllëgu njaboot Asma Khadija bokkoon ci ñu doon toog ca Sen TV yi naan leen bu ngeen toogee seen pooju ndey lii yëpp du leen ci fekk moo ko wax demoon na ba ne Ousmane Sonko sa digganteeg Mame Mbaye Niang bu fekkente ni yow liñ koy jiñ dëgg la jarul coow lu di bëri jarul jeunes yi di génn ci mbedd bi kon moom bu doon moom ak moom rek Macky Sall mi ngi fi te je me rappelle très bien jamono bi ñu doon wax wax report élection yi Asma Khadija daf ne woon pourquoi pas ne pas reporter ces élections ay saay bu doon yow ak yow kese kon tey jii Macky Sall mi ngi fi ndax makki Sall bu ñu reporté woon élection yi mi ngi fi kon décembre la ñuy xalaata organiser waat yeneen élection décembre kon tey changement du am rupture du am ba nga jël def say lobbying di lijjante ay numéro El Malick Ndiaye entre autres ku ne nga woo ko xamuñu nag comment ça s'est waaye li wérte woon mooy woote nga fu ne woote nga fa ngir lijjante numéro El Malick Ndiaye ñun donc on a rien contre toi mais ñun on se bat pour des principes te ku dul yog sax bis bu demee nii ñu toog wax ko dañoo dañuy toog ñun amuñu lu ñuy xof ñun ay principe la ñuy xeex am ay valeur am lu ñu bëgg a réew mi yaakaar naa ne ak li ñu daj yëpp du tey la ñuy toog war a gunge sa projet mu faire développer sa pays sénégalais yëpp gis ci seen bopp ay nit yu mel ni yow bëgg a ñëw di salteel duñ ko sax nangu yow yow ànd ak yow ci projet bii loolu day yàq image man bu ma doon zappe jàpp di jàpp jàpp jàpp RTS ba gis kanamu Asma Khadija dama koy fay pour lan pour lan ma war a toog Asma Khadija mi doon wax naan nañ reporté élection yi mi doon wax naan ku fi dee sa yaay yaay sa yaay yaay perte pour lan au nom de quoi ani Mati Sarnia ani Nene Aïcha Ba Nene Aïcha bu Sen TV Fatou Abdou Ndiaye ñan ñoo leen gën a professionnel nañ ci bàyyi xel te def ci taxaw seetlu loolu laa amoon lu may wax ci kaawu Asma Khadija ma ma tegaatal leen ay kàddoom pour finir. non du bi. bu mu laal Ousmane mais aussi nit buy génne ay propos. jëmale ko si nit boo mhm. xamante ni xëy na dafa am ndombal tànk bu fekkee am nga ay kayit yu koy firndeel bu la neexee waxal te buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn parparloo na nga dem wuyu ji bu ko defee nga euh, wane kayit yi bu wane kayit yi y aura pas de condamnation. en ñoom ñoom déjà. dégg ngeen ko moom moo wax lii li neex ci wax ji moom moom ay waxam lañ koy àndil ak ay waxu collègue am looloo neex ci wax ji. waaw nee nañu waaw. man man man du ma doyal si lii lii si boppam laa dul doyal ñu dégluwaat ko. mais aussi nit buy génne ay propos jëmale ko si nit boo xamante ni xëy na dafa am ndombal tànk bu fekkee am nga ay kayit yu koy firndeel bu la neexee waxal te buñ la woowee procès jarul yëngal réew mi jarul yëngal dëkk bi jarul kenn parparloo na nga def. voilà Asma Khadija moo waxoon lii si procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang beneen affaire Mamadou Biteye. bu se bu bu Walfadjri yow nga ne ñiy contre recrutement wu Asma Khadija c'est parce que dañoo yaakaaroon ni nguur gi bu faloo dañuy am poste mais tu te trompes mon cher yow ak Asma Khadija yéen yam yow ku la déglu woon wala ku la toppoon tey jii euh, régime bi du changé kon Macky Sall dafay toog ba tey kon Macky Sall dafay toog ba tey ndax yow dooroo àtte woo xeex. dóoroo àtte woo xeex munoo fee toog tak tey ne ñiy compte ma ne ñi fi wax waxu Asma Khadija Coro Maxu Mandela dégg naa fi Sa dégg naa fi ay collègue wu euh, ancien collègue bu bu yu Asma Khadija di Mamadou Mansour Diop ak euh, Ahmed Aydara te lu ñu wax lu lu xel mën a dégg la dama ne ñun buñ ko buggoon tey mu doon tay pour la na may poste bu ñu neexee